papa ñu ngi lay ah, leen di fay lu gën a bari. Ah, yow yaay papa bu góor yi. Ah, waaw man maay papa waaw. di sant yàlla rek. waaw di sant yàlla di gërëm yonent bi sallallahu di ca ko def kontaan ak mbégte di ko ñaanal sa borom guddal fan ak wéral cëram ba li nga xam ne nii moom la sëmbitam sa borom yàggale ko ci barkal Alxuraanu Karim waaw kontaan rek laa ko def waaw. noo gisee mu nekk xale moom mu dugg si néegu sëy ah, loolu sant yàlla la kenn ku nekk dangay ñaan sans borom dem ba yore sa doom ba gis ko ko bëgg ah dugal ko néegu sëy ñaanal ko yàlla ah, mu barkeel fa waaw parce que Jayla day xale bu baax bu am yar maa ko jur waaye am na yar am na teggin am na sutura bëgg na ay waajuram waaw sëy nag moom yàllaa ko santaane yonent bi santaane ko sëy day lu war di lu baax waaw. ban kii bi euh, euh, moom nga bi de li ma koy seddeel ah Dieyla de sans borom li ma koy seedeel dina am lu baax waaw ci kàttanu yàlla ak yonent bi. parce que dafa bëgg ay waajuram dafa bëgg ñaari waajuram loo wax mu ne sama yaay sama papa sama yaay sama papa. depuis muy am douze cent treize cent ba léegi musta joo ci gémmiñam boole nag di ko jëfe itam waaw douze cent treize cent ba léegi waaw woon na alxuraanul karim da koy jëfe sama yaay sama papa rek ñoom a ñor ñoom rek laa bëgg sama yaay sama papa rek. waaw waaw moom kay macha allah wax dëgg yàlla sant yàlla bu baax waaw waaw. ménagère am moom itam ginnaaw yàlla ak yonent bi ak ñaari waajuram li ci des lépp yaas la. yaas gay la jay la fu mu egg tey àdduna wërngal këpp tey ñu naan jay la la yaasa ko fa yóbbu fu mu mën dina tey yaas yaasu ñu di ko dégg tey yaas la waaw lépp liggéey lay dénk yaas yaas li ma koy dénk moom mooy heure bu jotee jay la góorgóorlu ci moom rek waaw waaw waaw góorgóorlu ci moom rek jàppale ko jigéen moom daa mutut waaye nag yaas ku baax la te xam naa am nañ ci yaakaar ne bu ko jëlee dina ko yor bu normal parce que yaas nit ku baax la nit ku baax la ku gëm boppam ah ku nangoo liggéey waaw ku am yar itam ku am teggin mooy yaas gi moom am na yar am na teggin nangu naa liggéey waaw te nit ku baax la. ñoo gisee temps yi passé dafa am ay coow bu toppoon tey la. Mhm. ay ay affaire ah, loolu nag moom wax dëgg yàlla kooku moom mënu ma caa sori kooku moom sans borom dogale moom yooyu moom moom moom concerné man daal lii bisu tey bi moom moo concerné lii tey lii ma ma koy war a dugal néegu sëy tey loolu moo ma ñor waaye moom lu yële moom loolu moom concerné mo wax dëgg yàlla kooku moom sama yoon nekku ci. Eh, jërëjëf loo koy li ma koy dénk heure bu demee néegu sëyam na góorgóorlu gëm borom këram jëfe ndigal bàyyi tere yaayam royuwaay la yaayam nit ku baax la. yaayam royuwaay la waaw bu demee daal na jëfe ndigal bàyyi tere ànd ak borom këram borom këram di xaritam defal nga def bàyyil nga def bu ku ko def rek da ngay daal di man a jubóog sa borom kër waaw kon Diayla Yaas dama koy ñaanal di ñaanal Diayla Gueye sam borom barkeel leen guddal seen fan wéral seen i cër ak mbooloo mu jullit ci barke Seydina Muhammad ci barke alxuraanu karim barke salaatu fatiha. ok ñu la jaajëf waaw jërëjëf.